lamin nettalil tey jii sa gént gi ndax ñu xam ni sët daal bu doon ne maam ja baayam ya sopp ko dama tëdd bis man bay nelaw rekk daa di tiit mu mel ne dama gis alxuraan man ñu fàtte ko ma laaj ko mu daal may wax ne man ndékki laa deful ndeleg-leeg ñu jox mas añ akas tip maraare ko ndadaa am ku daa ndékki ci man alifun banaas balaa jant bee jëm kaw tabur yàlla yóbbu ko sëriñ mbàkke madina ko daa def ci bis bu balaa njël mu jàngub kaamilam nag ba ko sëriñ mbàkke daa def alxuraan muy ubbi waxam balaa xëy waxam nit faw kaamil mu jàng ko gannaaw alxuraan lay fonku def ko ni ab dundam xasaayid yi ñii ko i jàng sëñ bàmba sédde ko gannaaw alxuraan lay fonk def ko ni ab dundam xasaa yi ñii koy jàng sëñ bàmba sédde ko ku dib jàngkat boo xam ne siiw na te am xorom mbiram yépp daf koo jox sëriñ mbàkke dénku ko sëriñ seexloo sëñ wadd ak fallu njaay a ngi te Ibra Kebe Xaadim Kebe yow li maale ko sëriñ Daam Sekk Baay Moustapha Kebe Madina sëriñ Baara Gay Njaareem sëriñ Ndam de doy na ko sëriñ Bada Njaay Poofoon sëriñ Mbàkke Cuuna ngi sëriñ Daam Gay sëñëm di Sekk li ko sëriñ Mbàkke Seen Njiim Jang Matar Gay ku baax ngi ma jóob gay ko xam Seex Ibra ñaa xam na ko sëriñ Mbàkke Géy mbay looja alxaaji sekk ngi sëriñ Njaga mbay ñaamar ku baax ñépp xam na ko sëriñ Seex Ture sëñ Baara mbay bàcc jaañ gi loor sëriñ lu sëy Seex Wàdd sëñ Seyli maale ko tebul fàtte dan taalit tebul fàtte jaani mi amaat na ñeneen ñoo xam ne jëmbul ma tudd ko xasaayiti sëñ bee ngi da ko belli génne ko ci biir alxuraan moo tax ñi koy jàng topp ko sëriñ Mbàkke Madina daf daareem di yëkkati di wax ca kaw ci teewaayu baayam waa tundóo di de xam na ko xasaayit bu àndeek alxuraan booba wàcc na